من درار بجاي أبتلي من لله قد لجأ ما قد ناء القلب من درار بجاي أبتلي الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان الضر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنفع من الوآب ليس من الأعداء والأحباب يا رحمن يا رحيم di siyaare tamit nag wax dëgg yàlla ki nga xamante ne sunu borom dogal na mu dajale ñu fii muy sëriñ Ahmadou Sougou di ko siyaare bu baax a baax di ko jox waayam di ko ñaanal yàlla sama borom guddal fanam yàggal taxawaayam wéral cëram ba yéeneem ci liggéey Sëriñ Tuubaa it yàlla na ko ci sunu borom defal lu kaw njortam mu dajale ñu fi nag tey ñu teew fi ci teewaay bisu maamam muy sëriñ jéeri waaja waagaan sugg sabab bi nag sunu borom jaarale ko ci li nga xam te ne moo ko tax a jóg te mu woote ko muy feeñal liggéeyal maamam waaye xëj na balaa may sori ma leeral tamit wax dëgg yàlla mbooloo mi nga xam te ne ñoom laa àndal maa ngi àndal ànd ak waa Nuuru Daarayni Touba pikin ci ndigalu sëriñ Abdou Aziz Mbacke moom sëriñ Modou Aïssa Mbacke maa ngi ànd ak ku ñuy wax sëriñ Daouda Cissé ak ku ñuy wax sëriñ Aline Badji ak sëriñ Samba Ndiaye ak jëwriñ Abdou Diouf mi nga xam te ne moo jiite jotaay bi jiite Nuuru Daarayni man mii di si kaddu gi nag maa ngi Mouhamadou Moustapha Deme yore yore seen porte parole mooy teewaay bi nga xam te ne moom ñu fi tax a jóg te sëñ bi sëñ Ahmadou Sougou boo xoolee jotaay bii mu woote sabab bi du lenn lu mooy wane liggéeyu maamam maamam sëñ Jéeri Waadaan Sougou muy lan digganteem ak sëriñ Touba digganteem ak mbindeef yi digganteem ak njaboot gi digganteem ak ak ak alxuraan digganteem ak sunu borom. kon sëñ Ahmadou sa sa sa woote gi wax dëgg yàlla maanaam la tax yàlla boole la ak Serigne Jéeri ngay kilifa di sëriñ ak tur wañ la tuddee muy Ahmadou. wax dëgg yàlla sa woote gi firndeel na dëggal na leeral na ne yow mi xam nga fa nga bokk xam nga ci li nga war a nekk xam nga ci li nga war a def. bis boo xam ne bisub sant sëñ Tuubaa la bisub sant maam ja sëñ Jéeri Waran Sugu jotaay bii nag ñu toogee di jotaay boo xam ne jotaayu mbégte la jotaayu sëriñ bi la nag ci ay yónneen yoo xam ne sunu sëriñ sëñ Abdou Aziz moom sëñ Bourou Aïssa yónni fi ak njabootam di ay taalibeem ñuy ànd ak. mbooloo mu takku ñëw fekk si fii sëñ Ahmadou Sougou fii ci King Fahd Palace ngir jotal si ab siyaar ak yónneen boo xam ne ñu ngi koy jëmale ci sëñ Ahmadou Sougou ah, sëñ bi nag di leen delloo ak cant ci sëñ bi di leen xamal ne bég na ci moom lool ndax seen diggante ñoom ñaar kull la gu yàgg goo xam ne moom xam na ko sëriñ bi xam na ko moo waral ngeen bàyyi seen itte yëpp ñëw ci ndigalal sëñ bi sëñ bi bu soñoon moom mooy teewal fii boppam kon nag loolu xam na ko te na ci lool. mu koy ñaanal euh, seen diggante bi nga xam ne yàlla boole leen ñoom ñaar muy ak kóllëre yàlla na ko sëriñ bi teel te sàmmal leen ko te làqal leen ko fa yàq àggul daal lu ma a xew na ngeen xam ne sëñ bi bëgg na lool ci ci ci teewaay bi am na ci kontaante lool di leen xamal ne bu ngeen àggee nañ ko xamal ne ko bisam bisam bii euh, gis na ni ko sëñ bi gis na ni ko jàppee te yóneen bi sedd na xolam lool te bëgg na ci lool mu ngi ñaan daal ku fi teew yàlla sëñ Tuubaa fa say aajo saaxiran wa baatinan yéen ñi nga xam ne yéen la tamit ngeen ñoo xam ne ñu matal yónneen ngeen ñu mat ay ndaw ngeen matal ngeen ko ni mu ko bëggee nee na xolam sedd na ci yéen lool mu ngi leen yàlla sëñ bi taxaw leen te sëñ Tuubaa nangu seenu liggéey ci barke borom Tuubaa bëgg nañ lool suñu xol sedd na bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jër ngeen jëf te di leen gërëm bu baax a baax a baax di am kontaan lool seen teewaay bii ndax jëmm ji nga xam ne moo leen fi yebal day léppam di xaritam yàgg ak moom lool. fonk ma ko lool. fam ma teg fam ko teg. kawe lool kawe lool. waaye moom it fa mu ko teg. mu kawe lool. ba mu may jàpp. koy jàpp. du tey du tey. booba tuut tànk la. di jàng xam-xam di jàng xam-xam. dem ci këram di dem ci këram. mu koy toppatoo. di ko taxaw. boole ko ci boppam. yëg ko lool. loolu du tey ji yàgg na lool. ba tey ba tey. yàlla dogal yàlla dogal. ñuy sant yàlla bu baax ñuy sant yàlla bu baax. moo tax mu fonk ko moo tax mu fonk ko. ndax ba mu koy jàpp. boole ma ci boppam boole ko ci boppam. boobu mënu dara. fu nekk mu fay ànd moom nekk mu fay ànd ak moom. yéene ma loo xamante ni. yéene ko loo xamante ni jàpp na ne kenn yéene ko. ndeysaan nee na kon mu ngi koy sant bu baax. di ko gërëm. ndax nii nii mu leen ndax nii mu leen yabalee ngeen ñëw fekk ci ko fii ci King Fahd Palace. lu rëy la ci moom. mënoon na koo bañ a def. mënoon na koo bañ a def. ndax fan yii yëpp mi ngi koy woo. di ko ñaanal. ñaan googu rek doy na sëkk. kon mi ngi koy sant bu baax. te di ko gërëm. waxantuma laak mu boole ci alalam. jox ko ko. te loolu du yoon ci moom. ndax moom moo ko jox addi Sëñ ndax sëtu sëñ Tuubaa la nee na mi ngi koy sant bu baax te di ko gërëm lii ak yëg la ak yëg la lu rëy la ci moom lool xolam sedd na lool nee na mi ngi leen di sant yéen it di leen gërëm di leen wax ne am ngeenub sëriñ jàpp leen bu baax nit ku baax la nit ku jub la nit ku sell la nit ku rafet xol la loolu moom xam na ci dara kon na ngeen gën a jàpp te gën a góorgóorlu ànd ak moom di liggéeyal sëñ baa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu bis bii tey këram la ko njëkk a defee surna sëñ jili bii ci saalam la jëkk defee réunion bu jëm ci bis bi ba tey jii ren jii di septième édition kon xam ngeen ne moom ak yi moom ñoom ñaar yàgg ba mu koy xalaat rek këram këram la ko njëkk a xalaatee mu ne ko sëñ bi bu ci dellu ginnaaw sa maam dina la ci fekk si te ko xool bis bi xam ne fekk si na ko ci jërëjëf Sougou na ñëpp taal loxo mu def ñaan bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Euh, comme ni ko waxee sànq rek ñu ngi fii ci King Fahd Palace ci bis bu tedd bu sëñ Ahmadou Sougou di wooteel maam Serigne Ndiéri Wadane Sougou ñu nekk fii ci King Fahd Palace nekk ci bis bi euh, yàlla dogal na mu am gan gu mag goo xam ne mbokkam la di léppam euh, di léppam di koo xam ne koo xam-xam ko xam ko ak diggante seen seen seen diggante ñoom ñaar muy sëñ papa Sougou sëñ papa Amar di ku baax koo xam ne koo xam-xam ko ak sëñ bi tey mu teew fii ci bis bi ñu war seen koo jox kàddu bu ko defee mu nuyu sëñ bi jàll ay kàddoom ci bis bi. bu ko defee sëñ Papa Amar bisimilah. ah bisimilah rahmaani rahiim euh, asalaamaaleykum euh, sëñ Ahmad maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbooloo mu fi fekk euh, di la sant bu baax a baax ci jotaay bi bis bi am na solo rawatina ba nga ñu ci boole te ñu bokk ci loo bokk ñu boole la ci dafa rafet. Euh, nga jël sama maam tuddee ko bool ko ci ñi nga xam ne ñoo nga ko tuddee bis bi di ko ci rendre hommage ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax yow nag da nga den nit ku baax euh, si say tànku maam ak Sëñ Tuubaa lam jàngale ca nga nekk moo tax koo wóos sa naa ñëw parce que sa bis bi ak ca nga nekk womul ñàngale Sëñ Tuubaa euh, ci liñ lay dégg weesuwul imaan weesuwul islaam weesuwul ixsaan donc nag takkook yow Euh, ki ko def won na ko donc bis bi nag ñoo ngi ci sant bu baax a baax ba ñu ci boole ñu bokk ci jërëjëf. Ah, jërëjëf sëñ Papa Omar ci kàddu am solo yooyu bu ko defee ñu jox euh, sëñ bi rek bu ko defee moom mu jàll ak cantam ci yow waaw bisimilah sëñ bi. waaw jërëjëf sëñ Papa Omar ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan bu baax a baax a baax ci teewaay bi ñu koy rafetlu lool nag. Euh, lii moom sedd na sama xol lool ndax ñoo bokk lépp te ku la dàqoon dàq ma ñu ñaar ñoo bokk fenn fu ñu fu ñu dem <laughs> waaw kon ñu ngi sant bu baax ci sa teewaay euh, lii nga xamante ne nag moom cër bii nga xamante ne jël naa ko rek boole ci sunu maam ju baax jooju di soxna bu sa sug loolu lu ma war a def la ndax wax dëgg yàlla sunu maam la sunu lépp la woon waaw di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko àjjana nit ku baax la woon nit ku yiw la woon loolu moom wax dëgg yàlla xam nañ ci lu bari waaw doonoon ku sell macha allah ku bëggoon mbokk macha allah waaw njabootam tamit ñu xam leen bu baax muy sunu bàjjen yooyu muy soxna day mata sugu soxna awa sugu ñu ñu baax ñu bëgg mbokk ñuy dundal ñuy dundal yoon wi waaw kay ñu ngi leen di sant bu baax di leen taxaw di leen sant bu baax ci seen taxawaay ci bis bi di nuyu tamit soxna Asi Baabu mi nga xam ne sama xarit la di sa di sa mag di sama mag ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu bu baax njabootu soxna Awa Suuf gi yëpp ñoom soxna Magat ñoom soxna ñoom sëñ Lamine ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom sëñ Xaadim sa mag ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ci seen taxawaay ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla taxawu leen bu baax a baax a baax sama xol daal seet na ci lii lii daal li tax ñu def ko lu lenn lu dundal ak bokk rek moo tax ñu def ko waaw dundal ak bokk rek moo tax ñu def ko allah te xam ngeen bu baax tamit nag jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm ok jërëjëf Ama jërëjëf. Euh, asalaamaaleykum bi ñu sante yàlla di julli ci yoon ci yàlla Muhammad di jaajëfal Sëriñ Tuubaa Ibnu Xaadimu Rasuul euh, ñu nag dañu def délégation boo xam ne délégation bu mag la. boo xamee ne Cheikh Bass moo ne nañ ko fi représenté ndax dafa am ngant te ngant bi muy ngant boo xamee ne looloo ko tey ñëw léegi rek ca fa mu jëm noonu ne nañu te leen a dem ndax ñu xam ne man maa leen yebal euh, bis bii nag bis bu mu fonk la bis bu mu naw la ndax lu mel ne jarbaatam ba pare di xaritam xewle eh, nii rek la mën a def moo tax mu ne mbay gumbalaak bay naag ñun ñëpp nañ def délégation ak mai ba ñun ñëpp def délégation ñëw bokk koog moom saafantoog moom bokk ko moom eh, di ko ñaanal nag yàlla na ko yàlla dolli sutura yàlla na ko yàlla dolli xéewal Cheikh nee na mbégte mu rëy la mu rëy la ci moom nii muy def sax di rassembler mbokk yi te ki nga xam ne tey mooy sunu maam ñu ñëpp mu di ko defal euh, mbégte la yàlla na ko yàlla may fan wu gudd yàlla na ko yàlla may wér-gu-yaram mu koy defi ati ati at ndax kii kat référence la ci naar moo mi référence la te référence dañ képp ku koy def nag war nañ leen fa royukaay ah di ñaanal tam cheikh yal na ko yàlla may fan wu gudd yal na ko yàlla may wér yaram yal na ko yàlla dolli sutura ak xéewal yu yaatu ci darajey Muhammad yow nag amu aw yow amoo yow mbokk yëpp la gërëm mbokk la sant ndax ba ba nga toogee cheikh dégg nga lu mu la wax def na yow nga yow man nga yow laa te seen ànd du léegi jërëjëfati sugu fara yal na la yàlla dolli sutura gu mag a mag a mag yokku la dolli xéewal gi ba lépp looy def rek am ci ndam ci darajey Mouhamed jërëjëf loolu rek laa ne woon Cheikh ma yóbbante ko di Cheikh ak délégation bi mu àndal ñu ma wax leen loolu jërëjëfati jërëjëfati sugu fara ok jërëjëf euh, sëñ Mbaye sugu fara jërëjëf kontaan naa lool ci kàddu yu rafet yi nga fi yëkkati sama xol sedd na bu baax Euh, may nuyu bu baax ki ngeen jóge ci moom muy sama nijaay di sama woyjur muy sëriñ Cheikh Gumbada muy ku baax ku bëggum mbokk koo xamante ne na ma ko waxe woon ci seen kanam yi ñëpp ne naa ko sagu naar yëpp nga te loolu tamit euh, am nañ ci fierté bu baax te rusuñu ko wax fenn tamit nag macha allah ndax yàlla dogal na ne ku ñëpp di sagoo la nit ku baax la ku mën a def lu baax la mboolem ëtt diine yi lu ko xewle nii la ci nii la ci taxee lu mu ci man dana ko ci def yëmaliwu ko ci yoonu murid rek waaye ke ëtt kër diine yëpp rek fenn fu ci na rek loxoom ma nga fa te loolu man xam naa ci lu bëree baree bëri ñii nga xamante ne ñoom la bokkal Darmanko yi tamit muy askanu Darmanko macha allah amul kenn koy xewle te du ci dugal loxoom te lam cey dugal sax jàpp naa ne amul keneen ko ko ciy def ndax xolom bu rëy xolam bu rëy ak ju rëy joo xamante ne xam nañ ko bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax bis bi lëg ci war yëpp def na ko ci daaw ba mu ko mënee dafa ñëw toog ba bis ba jeex mu dellu kon ren jii bu amee ngante dañ koy comprendre xam ne noonu rek la mën a demee waaye yéen ñii mu yebal nga xamante ne sama yéen ñëpp samay waajur ngeen rek daf maa doy sëkk menn yow mii rek boo ñëwoon dafa maa doy sëkk waxantuma la ak sëñ bay na mii nga xamante ne mi ngi ci di sama nijaay di sama lépp euh, ak sëriñ Modou May Babu moom it di sama waajur moom it macha allah sëriñ Bay Gumbale tarkalla yéen daal sama xol sedd na bu baax délégation bi daal amut mënta am délégation bu ëpp bi wax dëgg yàlla lii moom muy wane na fonk na ma ndax délégation bi ñi ko jiite ñëpp kenn kenn ku ci na rek ëpp nga ci délégation waxantuma la yéen ñi ma yéen ñi mu boole ñëpp nag te macha allah sama xol daal sedd na bu baax maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gis naa nag ni mu ma jàppe man man personnellement ni mu ma jàppe man xam naa ko maa ngi koy sant ci barkeb seen jéeri waa daan xamante ne moom la ñuy defal bis bi yàlla guddal fanam te wéral ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. Fatou Babou kër ga kenn desut njabootam yëpp dagg nañ seen i yitte ñëw fekk si sëñ Amadou Sougou nee nag ñu ànd ak yow bis bi ndax seen yaay ga rekk la ñu am nga fàttali ko ci bis bi nee daal yàlla na yàlla doole leeram waaye ñoom njaboot gépp neen sant nañu la nee yow nit ko am kóllëre nga mbokk ma am kóllëre nga te bis bi bis bu rëy la ci ñoom ndax soxna si rek la ñu am soxna Xadi nit ku baax a baax njaboot gi yëpp nee nañu kontaan nañu. nee nag lii seen addi la nga defal ko ci bis bi kon nag ñu teewlu kàddu sëriñ bi sëñ Amadou nee mi ngi leen di nuyu bu baax yéen njaboot soxna Xadi Baabu nee mi ngi leen di nuyu nee di leen siyaare di kontaan lool nee bis bi noo ko bokk nee cër bi ma ci am moom ngeen ci am nee jëf jii ma def nee làmb tuuma ko ne man day li ma def xam naa ko ndox soxna xari ne soxna xadi baabu sama maam la woon ne sama tante yaay la waaye sama xarit la ne mu doonoon ku baax koo xam ne bu masaa ñëw waadaan bu nuyoo kilifa yi ba pare danaan leen maa ngi dem ca sama néeg sët ba ne toog fa nag nee ci man lay nekk ndogoog man ba guddi mu dem ñibbi daaru muxti nee looloo tax sama xel nekk ci moom nee ma fàttaliku ko te gis ni ci biir tawatam dem naa fa seeti ko mu tombeek saraxu sëñ Abbas maa ngi moom am na wax yun waxante nee loolu tuuse na ma nee moo tax sama xel di nekk ci moom chaque jour nee noonu ñu ko ñaanale noonu la ñuy ñaanale sama ñaari maam yee ko jiitu muy soxna may baabu ak soxna jëmb baabu nee ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen xaare leen àjjana nee kenn ku nekk ci ñoom jàngal nañ la juróomi kaamil jàngal nañ ko soxna jëmb jàngal nañ ko soxna may jàngal nañ ko soxna Xari ndax xam naa li mu doon ci nun kon bu ngeen defee délégation ñëw nii sëñ bi ne mi ngi leen sant bu baax nee di kontaan lool nee lii mooy ak bokk lii ay mooy ak bokk kontaan naa lool seen waajur a fa ne muy soxna moomi ñi ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér nee nit ku baax la ku jot li ak bokk la jërë ngeen jëf baabu jërë ngeen jëf seen yaay def na lu baax lu nekk waaye yéen a ngi ci yoon bi yàlla ngeen àggale amin yàlla na yàlla dolli leeram soxna xari yàlla na yàlla dolli leeram ci barkeb rasulullah sallam barkeb alxuraan di ko jàngal jërë ngeen jëf yàlla na yàgg ca kaw ca kanam bu tarix ya seen taxawaay rafet lool bis bii nag sëñ Yuusu lool yabal fi mbooloo mu bari nu ñëw fekk sëñ Ahmadou Sougou kon nag ñu jox leen yëkkat seen kàddu nee xanaa di sant rek nee di tuub tey jéggulu bu baax ci kàddu yi nee nee sëñ Yuusu moo bëggoon teewal boppam yàlla dafa dogal jamono ji sëñ Yuusu dafa génn nee am taxawaayum doon taxaw ci wàllu këru xasida gi nee looloo tax ñun ñii feete dakaar nee ñu ñëw teewal fi yuusu ak waa waa mbooloo mépp nee sëñ bi daal ñu ngi sant bu baax a baax nee ñu ngi sant bu baax a baax jërëjëf kon loolu mooy daayira bi nga xamante ni mooy waa isbu tarxiya ta yuusu sëñ yuusu yabal leen nee barki dem bi ñu jógee Touba sëñ Basiru Mbàkke Abdu Xaadir da ko recevoir moom sëñ Ahmadou nee ku ne gis na ko mu tàpp ko yëkkati ko tekk ci peggam ne ko bés maag yow koy ànd ndax yow nag da man ma jàppale lool nee tam mu yàgg lool sëñ bas Abdou Khadir ne bis bii nee noo koy ànd moog sëñ Amadou ba mu ñëw délégation ma ngi ñëw sëñ Amadou Sougou ne mi ngi sant sëñ Youssou mi nga xam ne sëñ moo nekk ci bopp bi ci daayira ci mboolem isbu tarxiya nee maa ngi koy sant nee di ko ñaanal yàlla nee ñoom isbu tarxiya pàgguteefu sëriñ Touba la nee day sagu yoonu murit nee moo tax képp ku bokk Hizbut Tarqiyyah buñ la gisee duna am ci yow sago nee ci ñoom laa gis ñuy liggéeyal Serigne Touba te boole wuñ ci ay wax nee jëf rek jëf rek lañ leen xamee nee waa Hizbut Tarqiyyah ñoo ngi leen sant bu baax nee di leen gërëm. ne ñun dañ cee bokk. ci Hizbut Tarqiyyah. ne li tax ma wax ko mooy. boo ko laajee sëñ Youssou. ne dina xam li ma wax. sama maam sëñ Ahmadou Tasrif Sougou. moom Serigne Jiri Waadaan Sougou. ne baatub Hizbut Tarqiyyah. ci moom day ci moom day bokk na ci ñi njëkk a wax bokk na ñu njëkk a wax baatu isbu tarxiya nee moom day nee na kuréelu isbu tarxiya bii sëñ tubaa wax na ko ci kanamam muy dégg te booba isbu tarxiya amagul ne loolu sëñ Ahmad Tasrif moo ko nettali sëñ Aato te booba sëñ Aato élève la buy jàng nekk université di jóge université di siyaari sëñ Ahmadu ñaari tëli nee sëñ Yuusu mi ma lay wax nettali na ma loolu sëñ Aatu nettali na ma loolu kon bu ngeen defee nii kóllëre kër sëñ Jiiri Waadaan Sugu yéen yéen a koy doxal ne sant naa leen baax gërëm naa leen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa Hizbut Tarqiyyah kon assis ñooy nuyoo noonu tey ñëpp ñëw nañu sëñ Amadou tol noonu amin nan may sëñ Mourtala moom ngi ci bisub sëñ jeeri waa daan sugu an mu jot sëtam bii di sëñ Ahmadou sugu xumma di ko taxawal waaye du weet bu wootee ahbaab muy sëti sëñ jeeri waa daan sugu yëpp la koy àndal ñoom ñëpp génn nañ gis nga soxna yi nii ñu oto so tey jii tey daal xol yëpp sedd na gis nga sët yi ñoom ñëpp oto su nañ génn nañu waajuram bu baax waa ngi nii di sunu yaay ànd ak bokk yëpp ñëw waaye boo wootalee Cheikh Jili Wadane doo wéet boo gestoo say bokk ngay àndal lii rafet na lool kon nag tey ñëpp nañu ñu teewlu sëriñ bi waaw sëñ bi kat say bokk dañoo ñëw ànd ak yow bis ana soxna Binta aca soxna Binta ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ne ginnaaw bu ñu yàlla julli ci yonent bi nee sant sunu maam nag Cheikh waa daan sugu nee di wax ci kàddu soxna Faat sugu mii di sunu xalifa di wax ci sunu mag ji di sunu rakk nee amun ku du Cheikh Jiri waa daan sugu amun ku du Cheikh Jiri bëggul ku du seen Jiri yëkkatiwul ku seen Jiri nee moo tax tey jii njaboot seen Jiri gi gépp àndandoo ñëw ci ginnaawam ne ci kanamam ne ci wetam mais fas yéene ko jàppale ba mu tàmbalee ko ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin nee di ñaanal nag sëñ Amadou Sougou ci barkeb maamam lim bëgg ci kër maamam Cheikh Djily Wadane Sougou yàlla na ko yàlla defal nee ñun mbokk yëpp sant nañ ko bu baax a baax olof Njaay dañ ñi bu nee nit baax na. waaye naka mbokk ya wax waaye ne Amadou kat ay bokkam ñoo baax na ndax maamam rek ay moo yitteem jërëjëf lii daw na yaram jërë ngeen jëf yéen seex sañ jiiree tol noonu seen maam sañ jiiri waa daan sugoo tol noonu seen maam ngeen ay gor di ko ànd ca suba ba léegi noo ci bis bi danoo yendoo jàngal xuraan bis bii nag ñu ciy fàttaliku ñu bari rendre hommage Senti ñii ñu tudde leen bis waaye ñu jox ci cër nag Serigne Cheikh Daaru Baabu ñëpp xam ko nag ñuy ñaanal ko baax ci bis bi yàlla yokk ay leeram ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nu jàngee alxuraan jàng nañ juróomi kaamil sëñ bi ni ñu fasal ko ci baax yàlla doole ay leeram booba ba léegi nag ku ne ñëw na fi. waaye bu njabootam defee forte délégation àndandoo ñëw ci kilifteeg sama yaay ji muy soxna asubaabu ak ñi mu àndal ak sunu gaa yu baax yi ànd ak ay rakam ànd njabootu kër gi sëñ Amadou ne lii lim ci jublu ak bokk ak fàttaliku ngir lu baax li mu daan def ci bokk gi ak jàpp gi mu jàpp ko ne moo tax mu fàttali ko ci bis bii kon nag yéen njaboot sëriñ Cheikh jërë ngeen jëf bis bii ngeen ko jàpp ngeen ko sëñ Amadou ne xolam sedd na guy kon ñu bàyyi ñu yëkkati ci kàddu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 gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo